ne mooy yaay Muhammadu Rasulullah xasima dal manaaf ñooñe ñooy maami Muhammadu Rasulullah Husayn Kilaab Muhammadu Rasulullah Murata Kaabin Muhammadu Rasulullah Walwayin Muhammadu Rasulullah wa Xaalibin Muhammadu Rasulullah wa Fiirin ñooñe ñooy maami Muhammadu Rasulullah wa maa di jeeb maa gëm jër na dërëdil rab mi wooy كنانة تاك أسيمة تاك مدركة إليا ñeenti Mohammed yi nga xam ne sëñ tubaa am na leen ba noppi soog a dugg ci géej ñeenti Mohammed yooyu nag ñeenti Muhammadu ñoo wàcc ci alxuraan baatu Muhammadu ñeenti yoon la wàcc ci alxuraan fi ngay xamee ne sëñ tubaa amul morom. te alxuraan sëñ tubaa lay firi lu sëñ tubaa mooy firi alxuraan ñeenti muhammadu yi wàcc ci alxuraan yépp nin tegaloo ñeenti doomi sëñ tubaa yi tudd muhammadu noonu lañ magante te benn aaya buñ wàcc bu ne soo ko tuddee danga nga daal di xàmmee doomi sëñ tubaa jam doon loolu duy caaxaan wama yoon wi tas sëñ Modou Moustapha ñëw doon doon nuwul sëñ bi daa doon sëñ Modou Moustapha ba far doon sëñ bi lijjanti yoon wépp indi ci loo xam ne bi fi sëriñ bi bàyyi ko bàyyiwu ko fi woon maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa xaatima nabiina loolu mooy cheikh mamadul fadal fallu aw buso aaya ba la muy wax mooy muhammad day ku ko jàppee mbokk la ne ca moom dana la rëcc muhammad pëstéef lañ koy jàppee looloo tax sëñ Fallou daal di tëb jaay njureel ga ne sëñ Tuba yaa ayyuha cheikhu nafisul murtaja yaa fatihan maa xablu kaana murtaja bintu bannu watiya bil iraada lakkum li kay onsa bi xarqil aada xanaa kii nuroo naag aaya boobu ñetteelu muhammadu bi sëñ tubaa am te mooy ñetteelu aaya bi wàcc ci alxuraan mooy wa amunu bi ma nuzila ala muhammadin wa huwa al aqu min rabbihim kafar an um wa asla baal um sëñ baaraa ngi noonu di borom sañ-sañ di borom wilaaya fu mu jaar neex na yàlla mooy ñetteelu Muhammadu bi mooy bàyyi sëñ seex Mati lay waaye déglu leen ñeenteelu Muhammadu bi ni mu amee doole ndax ñetti yi yëpp li ñuy tegaloo tegaloo tubaab bi woo sëñ tubaa yóbbu ko ndar te fekkagul sëñ Basiru feeñ ba sëñ tubaa demee liggéey bi mënta tàmbali te sëñ Basiru feeñul weeru safar ñu dab sëñ tubaa ca ndar nekk ko soxna Faatu Madu Maam am na gan sëñ Tuubaa ne nañ ko tudde Muhammadul Bachir aaya ba wàcc ne muhammadun rasulullahi wallazina maahu ashiddaun alal kufaari rohamaahum baynahum taraahum rukkaan sujjadan xoolal boobu ñetti muhammadu yi li ñuy foor foor foor bu ci ne benn rek la àndal waaye bi yàlla waxee muhammadun rasulullahi da caa teg wallazina maahu ndeket ñoo ñooy ahlu badrin sëñ Basiiru ndekete moo ëndaali ahlu badrin ñu gunge si sëñ Tuba rasulun kariman la yubaha mukarramu basirun nasirun men o bina fi wallorri taqaani bi kasil qami man nawaral ija bi kawni khadiman lilasi qabla faraja salimtu min al ahda isran ma tija li rabbi wa babu lay lam yakum murtaja jërëjëf waaye xoolal loolu ma ne muhammadun rasulullahi wallazina aw ndekete sëñ tubaa muhammadul bashir moo war a ñëw àndaaleel ko ahlu badrin sëñ tubaa soog a sañ bind ne asiru ma al abraari ina asiru maa ngi ni nar a tukki ji waaye ahlu badrin lay àndal bu benn muhammadu manqué woon rek wallaay kon mbir mi dina kaam waaye benn muhammadu manqué wul te benn bu ci ne sa sa bopp nga indi ndekete ahlu badrin Mouhamadul Bachir moo leen indi ahlu badrin nag ay nit la ñu woon ak i jinne ak i malaaka boo gisee nu sëñ Bachiru Njaay mii sëriñ bi bëggu ko jàpp ko sëñ bi wax na ma ne baayam lu ne wane na ko ci jinne nee na baayam wane na lu ne ci jinne nee na xam na magam joo xam ne daana taxaw nga taxaw mu yëkkati ay bagages boole aw nit ñu taxaw mu yëkkati leen te kenn du gis lu leen téye kon kon gis na ci bëtam moom ne ñoom affaire jinne xam nañ ko war na koo mën a am ndax sëñ tubaa moo wax ne la àlaqa lazine aslamoo min jinni as yi doona mën la muslimo mboolem jinne yi gëm yépp tama jamononte ak ñoom ci mën leen jébbalu nit ñi mooy am ñu bokk ci yeneen tarixa ak yeneen i sëriñ waaye loolu amut ci jinne sëñ Touba ne ne jinne yépp may seen sëriñ sëñ Basiiru Njaay danga góor góorlu bañ lay bañ lay askanale ci sëñ Basiiru gis nga Basiiru Njaayum diw wala diwum diw lu am importance la sëñ Tuubaa daa waxoon ne ak tudd lu am doole la sëñ Ahmadou Jaw Paxa ne ko Mbakke dimbali nu wax nu lu muy jariñ sëñ Tuubaa ne ko fuus na foq naa bi fawqil Mustafa al mukarrami al mursalina man madaw min ummami Amadou jaw mu ne ko Mbàkke mu a ko xanaa xamoo ne Muhammadu Rasulullahi moo gën ci xeet ci yonent yi mu ne ko ah kañ Mbàkke mu ne ko xanaa xamoo ne aw xeet ma gën ci xeet yi mu ne ko ah kañ Mbàkke mu xanaa xamoo ne li Muhammadu Rasulullahi gën a ñëpp mooy ñun ñii sëñ ma Diaw Pakha ne ko gëm naa ko Mbàkke mu ne ko xanaa xamoo ne yéen ñii ma ànd ak man looloo tax ngeen gën ci xeetu Muhammad sëñ Modou Diaw ne ko Mbàkke loolu leeralal ma ko mu ne ko ki ub làmb fii yéen nu mu tudd mu ne ko mbër kaamil mu ne ko ñu koy topp mu ne ko ay suq lañ tudd mbàkke mu ne xanaa mbër kaamil de wege suq yi wegees na leen mu ko wegees na leen kañ mbàkke mu ne ko lu tax mu ah damaa defe ne xanaa mbër kaamil dana la jàngal la muy daanay nawleem moo tax ñëpp ragal leen mu ne ko ak lun sew-sew suñ ma jaw paxe ko mbàkke lun sew-sew ñu ragal leen mu ne ko ak lun ràgg-ràgg mu ne ko lun ràgg-ràgg ñu ragal leen sëñ Tuubaa bind ne phase lisi lisi tasadori odif bihi walaw kaana aqiran aw daif kon yéen ñiy lagg ci sama ginnaaw day na ngeen xam ne pays bu ngeen mën a wàcc ci pays sama borom yi noonu lañ leen di ragale noonu lañ leen di wegee ndax man mii ni tudd di leen tudd moo tax Ahmadou Diaw mu ne ko Mbakke mu ne ko lii kat alxuraan a ko wax bul defe ne ay léeb la sëñ Modou Diaw Mbak sëñ Modou Diaw Paxa ko Mbakke alxuraan yow lay firi leeralal ma loolu mu ne ko xanaa xajub ab xaj rekk la mu ne ko mbàkke xajub asaabul kahfi weesuwul dib xaj mu ne ko baa xam nga ne ba asaabul kahfi dugg àjjana xaj ba duggaale ne àjjana mu ne ko loolu kañ alxuraan a ko wax mu ne ko ndax xam nga lu ko ko may mu ne ko bëgg a xam ma indi fi yow mu ne dara mayu ko ko lu dul fu alxuraan waxe asaabul fii ñett lañu yàlla danaa kon de xaj baa leen ñeenteel buñ ne asaabul kahfi ñu ne juróom lañu mu ne kon de xaj ba moo leen juróom buñ ne asaabul kahfi de juróom-ñaar lañu mu ne kon de xaj ba moo leen juróom-ñetteel Sëñ Tuubaa nee na loolaa tax ba dem àjjana jotee yàlla ne duma leen boole di leen seexale ba dem àjjana dong jot ma leen di xajjale ndax maa moom xaj bi moom asaabul fi moom àjjana moo tax mu ne fa kalbu ahlil kahfi shahidun lisa xiina xada an xayrihim muntabisa ñu ne ko lu tax mu ne fa zikruhu bi zikrihim xat xuri naa